mandataire Ousmane Sonko bi di Ayib Daffé moom nag boobu ba tey gis ngeen euh, jaabante bi muy jaabante diggante DGE te li muy bëgg amagu ko ba tey dalal nañ ko fii ci Walfadjri am na ay kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci son excellence monsieur Macky Sall ñu dem seetaan ko ñëwaat. bu mën a wax. Mhm. yaakaar naa ni. Doudou Ndir dañu ne woon en tout cas mandat am jeexoon na bu yàgg. mais. jamono ji dafa am benn contentieux boo xam ne moo fi am mooy contentieux bu may wax nii. Hmm. te moom te moom en tout cas Sénat bi mu jiite prononcé wu nañ. voilà prononcé wu nañ ci. Hmm. te saisir nañ ko démb. yéen saisir yaa nañ ko démb. waaw démb pour mu euh, substitué wu. Hmm. maanaam lu DG waroon def jox ñu fiche. te nanguwu ko def te nanguwu ko def. bañ na ba tëdd si suuf. léegi Sénat am na sañ-sañu daf ko. loi may na ko. waa loi may na ko loolu nañ ko. Euh, ñaan. Mhm. pour Sénat def ko. démb ngeen ko def. démb nañ ko def. ñu jëlee ko fa tey démb nañ ko def tey ñu génne leen euh, ñu ñu remplacer ko tey. Mhm. donc loolu timing bi. déjà ça pose problème. te ñoo ngi si période de processus électoral nooy mën a renouveler Sénat. en pleine période. électorale te Sénat moo ngi war a am benn contentieux boo xam ne c'est un contentieux urgent bu mu war a trancher nga koy renouveler léegi dafa mel ni peut-être jàppoon na ni ñu fa nekkoon Sénat en tout cas parce que man lu ma jàpp mooy ni Macky Sall wane na ni moom moo téye suñu fiche de parrainage si makisaal Sall wane ni moo téye suñu fiche de parrainage du DG du ministre de l'intérieur Macky moo téye suñu fiche de parrainage parce que mënuñoo comprendre tey euh, décision justice ñëw ministère de l'intérieur bañ ne du ko appliqué injonction Sénat ñëw ministère de l'intérieur bañ ne du ko appliqué en l'occurrence Sidiki Kaba Sénat ñu saisiraat ko Sénat nar a appliqué waat loi bi parce que Sénat amul beneen choix bu dul appliqué code électoral bi te dafa war a code électoral bi substitué maanaam lu DG waroon daf bañ ko daf Sénat daf ko ñu changé membre Sénat yi te kam ko changé c'est le président de la République Macky donc moom moo téye fiche de noonu alaaji Ayib moom dafa mel ni problème bi fi mu dooree ba fi mu yam ni ñu agsi fi tey responsabilité bi yëpp daf ko jël euh, wekk ko ki nga xamante la république. xam nga li mu gis rek la wax ni yi demee <laughs> parce que kan moo fa jëlee waa CEDA. moom président mooy président Macky Sall mbooleet fa jëlee. ah. te donc ñoom dañoo demoon ci Sénat pour mu lijjanti li nga xam ni mooy lii DGE bañ. Mm. pour mu jox leen seen fiche parrainage ci diggante bi ñu daal leen fay jële te DG moom mi ngi lànk boobu ba nëgëni. fal ku bokk ci DG nag moom dalay wan ne la. Mhm. Euh, doole ji ñu am euh, ba Sénat bu waxee mu tontu ko. ba noppi daal di wax ne joxewut te moom mu nekk ab lantinoor bu war a jàllale diw gi warut a nekk di téew diw parce que lantinoor moom bu demee moom bay téye diw rek problème am na parce que lantinoor moom diw ki daa war di jàll loolu moo nekkoon njariñu DG warta jéem a kale kii wala kële ñoom Karim Wade ak ñoom kii yëpp amoon nañ ca jamono jooju nekk nekkuñu woon ci fiche yeeg yooyu waaye joxoon nañ leen fiche parrainage ñu dem wuti ji bañ demee ba conseil constitutionnel lañ leen wax ne leen mun leen a nekk candidat donc lu tax bii yoon yëf yi doxee nii man dama jàpp ni fa ñu jëm waxoon naa leen ko fi expliqué na ne fa ñu jëm bu ñu jàppoon ni day nooy kon euh, duñ ko doxalee nii mais peut-être fañ jëm dañu séentu nii mën na demee neneen parce que nag daanaka mooy bal di match. ki nga xam ni. mooy joxe décision daal ne lii. mën nañ dem ba fële. seen yelwaan këpp xam naa nag moo tax wóoluwuñu. moo tax ñu indi moo tax ñu ne nañ lijjant fii parce que en tout cas xam nga fi mu toll nii jamono juñ toll nii. Hmm. kóolute dafay commencé di loolu day commencé di wàññeeku bu baax a baax a baax. Hmm. ci gars yi parce que gars yi tamit koo ci fal tey koo fal am na am na famille seen fami dañuy wax ak moom. Hmm. tey jii ñii ñuy soog a fal bi ñu leen di fal. biñ leen falagut amut problème mais fi mu toll nii seeni i famille dinañ waxtaan ak ñoom. ne leen nag fi réew mi toll xool leen bu baax seeni mbir. am na yu bari yoo xamante man am na risque yoo xam ne du ci dugal sama famille quand toog ba njës àddina bi Sénégal gépp di la joxoñ duma ko def. bu fekkante ni sax boo li may àtte li may wax sax man jàpp naa ne lii lu normal la. ma def ko amul problème bu boobaa danga koy def ak sa conscience. ak sa axulaay ak sa axulaay taala mais tey ñu ñëw indi la. loolu non seulement sax yow ci sa jëm man am na poste yoo xam ne bu ku ma ko doon fal ci jamono ji boo ma fal damay wax ne la bëgguma hmm. déedéet parce que ni mu demee nii beneen saa yi am na yoo xam am na yoo xam ne nit ñi war nañuy refuser yenn pal <laughs> yi parce que am na fal yoo xamante ne bi euh, ma jigéen hmm. kenn war sa nangu ñu fal la ko am na fal yoo xamante ne bi kenn du man du man kenn du ma fajee mer parce que am naa problème ak fii ma ne la kaay li jën ñëpp gis ni da nga am pour dem dox yi mission boo xamante ni bii nit ñëpp loolu lañ gis ñi ñu fal. mais ñoom kii bi ñuy teg dañu ne waa ji mandaawam jeexoon. waaw mandaam jeex na mais nañ war a tànnee tànneewuñ ko mandat ba mu jeex yàgg na mais bañ nañ war a tànnee tànnee wuñ ko bu fekkoon ne dañoo jaar ca nañ war a tànnee ak tamit li nga xam ni moom la ñu wax ne. bu ñu ba six mois des élections kenn waratul a laal mbir mi ba noppi ñu laal ko yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni bi war na mën a tax war na mën a tax ñu ne la ma jigéen kaay jël poste bi nga ne poste bi mënuma koo jël loolu dafa war a am c'est que Sénégal dañu war a toll foofu hmm. foofu buñ fa tollee parents yi dañuy wax rek kii fale mais ki ñuy fal tamit daf ci am part de responsabilité parce que ki ñuy fal moom it dafa war a am taxawaay euh, léeg-léeg dañuy jël rek daat ne fi ñu fal diw. mais est-ce que du bëgg lu neex waa ji keroog yaa ngi koy wax boo nee DGE peut-être dafa bëgg lu neex waa ji ba euh, lu mu bëgg rek lu mu xalaat ne diw bëgg na e ko rek nekkuma ci DGE non e, pas DGE e, euh, waa ji miy falaat nii yow yaa ne warul nangu ñu koy fal ci yenn yi ma ne ko est-ce que nekkul du day bëgg lu neex waa ji moo tax mu nangu ko xam nga tey waaw man de dinaa la xamal leen mhm. wallaahi peut-être bon nit ñi dinañ wax ne moom saa yi nekkul possible bi rek moo tax muy wax lii mais jamono juñ toll nii mm. su ma président mag Sall woowoon ñaar yi mooy am du dem wala bu ma demee du ma ko defal li mu bëgg damay def li yoon wax mm. ñaar yooyu rek moo mën a ne du mu wax ma ma ne ko déw ma du ma dem ci post bi jaral na ma sax gàddaay mais du ma ko jël mm. wa ilaa su ma demee la yoon wax laay def du ma def leneen lu waroog yoon. d'accord c'est lii mooy li nga xamante ni bii tey bu boobaa nga quitte ak sa conscience quoi comprendre. Mm. parce que gis nga àddina dara gënta neex. Mm. dara gënta neex nga def nga wàccoog yow sa bopp sa jëmmi bopp yow nga xam ni wàccoo nga. ak li yoon wax. Ngagne Demba Touré nee na waratuñu bàyyi euh, Ayib Daffé di wéet pour dem di jëli fichier sénégalais bu nekk war na jóg accompagner ko ci semaine bi buy delluwaat ci euh, DGA. xam nga bon man bon jàpp naa ni euh, actuellement fi mu toll nii moom ni Ayib Daffé di def nii. Mm. pour man baax na. Mm. pour man baax na parce que. Mm. Euh, bul fekk kenn ci jeu bu mu bëgg parce que ñii dafa mel ni am na lu ñu bëgg. lu munta ne maanaam dafa mel ni xeex bi gars yi di wax naan ay xeex ak yooyu dafa mel ni ñoom ñoo ko gën a bëgg mais gars yi bëgguñu affaire yooyu gars yi jàmm lañ bëgg defe naa ni daal lépp luy ràcc jàmm mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ni bii tey moom mooy li leen di li li métti fi mu toll nii mm-hmm. parce que tey ji dafa mel ni dafa am lu ñu bëgg mu yëngu mm-hmm. ba bu yëngoo ñu ne ah la situation bi doy na waar. léegi nag lii ak lii ak lii ak lii. donc loolu. Hmm. bu ko kenn parce que gis nga situation bi réew mi di dund ma jigéen. Hmm. wóor na yàlla dafa maanaam nit ñi dañoo stressé quoi. Hmm. doo xam luy xew maanaam weer yi dafa weer yi dafa gudd sax <laughs> comprendre nga maanaam dañ ci war a yegg ba. dromb nit ñi di voté def li ñuy def comprendre nga. Sénégalais yi génn dem voté ji. voteel ki nga xam ne moom la ñu war parce que ñaar yi rek moo mën a ne. soit mu ne Ousmane Sonko day dem Ousmane Sonko dem soit mu ne Ousmane Sonko demut Ousmane Sonko am candidat te candidat Sonko mooy gën a nekk Sonko ko Sonko. est-ce que comprendre nga c'est que nit ñi nañu focus ci loolu tigi parce que ñoom def nañ seen dialogue ba wax ni boo amee nangami député amul problème Sonko mën na pare ne ñaari député yaa ngi dégg yoo xamante ni bii tey mën nañ jëm Pastef ñoom ci seen jëm bopp Boubacar Camara loolu mu wax noonu man dama cee ànd Boubacar Camara wax na ne. Hmm. changement dafa war a am te bu amut responsabilité Pastef la changement dafa war a am te Sonko dafa war a doxal loo xamante ne bi changement day am ci réew. changement war a am te gars yi non day am ma jigéen ñii voté wuñu lii ñuy def nii yëpp. waaw mais ki ñu war a voté bu ñu ko téewee kay. Ah, Yaya def na bu gën a gara lu indi Adama bara ci nguur gi. yaay jàmme li mu dafa gën a garaaw te moom daf cee boole sax di dem ci élection yi moom kii nag moom demut yaa ngi dégg te gis nga lay am donc na nit ñi focus ci li nga xamante ni bii mooy élection yi bu fi kenn jéem a bu ñu jéem a créer benn mbir. parce que dafa mel ni loolu lañ bëgg pour ñu wut. Euh, prétexte pour pousse ay élection te élection yi mënta pousse parce que sénégalais yi dañoo sonn ci jamono ji nekk ni il faut que ñu fal koo xam ni. jàpp nañ ni kii kat war na mën a régler jafe-jafe réew mi. d'accord euh,